rek d'accord nañ ci moom secrétaire national à vie politique bu PS bëgg Serigne Mbaye Thiam nekk mbërum parti social ci tànn gi ñu war a tànn ci biir Benno Bokk Yaakaar avenue Faidherbe bu tudd léegi avenue Macky Sall maire bu Dakar Plateau Alioune Ndoye moo jël boobule dogal muy dogal boo xam ne askan wi rafet lu nañ ko ndaxte nee ñu euh, day euh, moom nag euh, dafiy dindi turu tuwaab yi moo gën kan turu tubaab yi rax si dool tamit Macky Sall méritoon na ko daañu teg xibaaru bitim réew xibaaru tàggat yaram ni ci yéene kaay laataa ñuy jeexale gis-gis ñuy waxtaane tey gi ñu manifestation yi wa passé fi nam moon amal ngir daldi eh, investir Ousmane Sonko ni sen candidat ci élection présidentielle bi di ñew mu nek li gëna a ci xibaar yi ne su leen ci ay faram-fàcc ci RFM. El Hadj Ndiogou Diène. Assane Diouf nekk ci machine bi mbokk ñi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar diggu bëccëg yi dañ koy door ak xew bi ñuy waxtaanee fan yëpp di uh, gaal gu yeboon ay nit ñi doon mbëkki daal di suux uh, ca bël ba ca ndar am na yeneen juróom benn néew yoo xam te ne gis nañ leen uh, bi que ñoom ñooñu sax dañu tàmbali woon di yàqu néew yi ba sax ñu daal di leen di suul sur place ca Tassinère Gandiol fi mu toll nii nag fukki nit ak ñeent ñoo ñoo ñàkk seen bakkeen ñeent rek lañu gis leeralee ko seen i job ci Tassinère Gandiol juróom-benn néew daan na leen di for ci plage bi looy nag ñu ngi ko amal démb ñoom ñi nga xamante ni nag sax for nañ leen foofee lañ leen mujj suul ci armeelu Tassinère yi léegi nag lim bi toll woon ci juróom-ñett ñu faatu dem na ba egg fukk ak ñeent Lamine Baraka mooy chef de village bu Tassinère Gandiol. peere nañ fi juróom benni koor ku morgu jumaa Tassinère fa lañu leen denc. Eh, ba bi ñu jotee ndigalu kilifa yi ñu gis ni koor yi dañu commencé changé ba kenn mënu leen dencaat lu gën a yàgg. donc instruction pour ñu denc donc nous finalement nous ngi leen denc ci cimetière u armeeru Tasneer jamono ji ñi di jigéen ñi ak ndaw ñi dëkk ci Tasneer daani ko dañu jaxlé nek itam ci ay jafé jafe nañ ko amale won ci atum 2006 ndaxte la ñuy gis ay néew ci seeni i plage bobé dafa baré chef de village bi nak néna état bi war na ci jël ay matukay ngir ñi nga xamanteni ñoy ay ndaw bëgg dem ci Espagne lolé mëna dak dakk lu metti la population yi fi ñepp fièvre ci phénomène bi nga xamanteni ni mu ngi continuer di fi am metti na trop que li fiy dee si xaleel bale bare na bare na lool lool lool lool. population yi vraiment seeni xol jeex na te jaaxle nañu te xamul nañu nañu def. fii ak ay waxtu wala ay bés bilan bi mën na soppeeku ndaxte li ñu jot ci xibaar mooy lu ëpp juróom-benn fukk ci ndaw ñu ngi woon ci gaal gu ni mel ñeent lañ ci gis ñuy dund. fukk ak ñeent ya ñu gis leen ñu daal di faatu li nga xamante nag mooy seet bi ñu ngi koy wéyal Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou Diop euh, lañuy des ci mbirum mbëkk mi ak kat di yoo xamante ni euh, kii di njiitu Horizon Sans Frontières Boubacar Seye yëkkati na ko moom tey ci àjjuma ji ñaan nag ilimaan yëpp ci seen xutba ñu jagleel ko mbir moomu euh, ta di ñaax ndaw ñi ne nag mbirum tekki mbirum yàlla la ku war a tekki yàlla moo koy dogal nee na tamit église bi di jàng bi ñu def lu ni mel ci messe yi ñu war amal ci dimanche ji dañ koy déglu moom njiitu Horizon Sans Boubacar Seye tey ci wàllum xeex mbëkk mi ak ci nouvelle modalité de sensibilisation yu ñu xalaat ni war naa mën a nekk puisque au chapitre des causes socioculturelles tey dafa am la pression sociale ak euh, la notion de am et de tekki loolu moo taxoon tey ma doon ñaan imam yi nekk Sénégal yépp tey ci ajuma ji ñu consacré seen xutba ah ci delloo xale yi seen bopp ci yàlla ci gëm yàlla l'éveil à la foi chez les jeunes pour réduire les risques à des proportions tolérables pour que yi gens sachent kat am-am ci en rek la se a et yàlla le am-am tekki amul yalla moy xol kiko neex mu amul ki dimbali am kon alors ñu dina tax euh, yi ci également aussi may lancer le même appel à l'église catholique et protestante du Sénégal pour que dimanche bi di ñew ñom de seen au cours des messes ñu ci à la foi mu nekkoon euh, Boubacar euh, Dieng noonu euh, nekkoon kon Boubacar Seye Boubacar Seye nag jiite kuréel gi di Horizon sans frontières doon wax nag ci mbirum mbëkk mi di ñaan ilimaan yi naka noonu tam waa jàngu bi si seen i xutba tey ak dimanche bi ñu jagleel ko ñaax ndaw ñi ci ñu gëm yàlla ci lu jëm ci wàllum tekki xam ne yàlla moo ko yor ko war a tekki da ngay tekki une juróomi minute. ak RFM kumpa jeex na. wéy ci xibaar yi dem ba Kaolack ca quartier Sam askan wa nag ñu ngi ba léegi ci biir ndoxu taw yi gannaaw taw bu njëkk bu mu taw si nawetu ren bi ñoom nag nee na ñu jafe-jafe yi tar la ñuy dund bëgg nag nguur gi daal ci jël matuwaay ñu dégloo ko yor seen kaddu may mën a njaay ci micro Fatou Mbow. génn bi li ko waral mooy ku nekk xam na ne ci nawet lañ nekk te c'était pas la première fois Sam di inondé bii nag dafa gën a yokk ak canal bi fi mu toll nii sonn nañ suñu ku ci dekk sa kër ñun suñu kër dafa fees te tey ku weddi woon tey li may wax boo demee yaa nga fekk suñu ëmb yi ñu ngi ko teg ci ci yàgg nañ koo ñaxtu nag mënut a fexe ba saafarawu duñ tudd kenn duñu xas kenn du ñaan kenn mais ñun li nga xam ne moom mooy jëmale kër suñu kii ni saam ji ni moom la ñu bëgg ku ñu ci dimbale ooyu xasuñ kenn nag kenn ne lii ak lii la mais ñun lu saafara ñun suñu saam plateau gi nii ak béyku koo xam ne yaa ngi yeewoo saam moom la ñuy moom la ñuy ñaxtu ci suñu dëkk bi ni pour ñu dimbale ñu ndox bi parce que sonn nañ sonn nañ ku weddi lii ñuy wax na ngeen ñëw dugg ci kër yi def investigation di ngeen gis kër yi ku ci nekk ni nga mel loolu lañ amoon pour wax tooñuñ kenn nag saagawuñ kenn defuñ lii lañ amoon pour ñaxtu ko suñu saam bi pour ku ñu dimbale canal bi dafa dafa dafa daf ñu indi gën a indil tolof tolof daf ñu gën a indil tolof tolof parce que yàq na loo xamante tey jii ni peut-être année yi passé sax moom mooy gën a tane que ren jii nii parce que canal bi ren jii nii ni ñu ko gisee nii nii du saafara euh, kii inondation bi nga xam ne moom moo nekk saam moo taxoon na ñu jógoon nag def ci ay jéego pour ñu jàppale ñu ci te yàlla rek tax mu nekkoon Maymouna Ndiaye doon wax ci turu askan dëkk ci quartier Sam ca Kaolack dem ba Bambey foofu nag mouvement gox yu bees di sakku ci mairie ba ni di leeral ci ni ñu yoree suuf sa ndaxte ne ñi ne suuf sa taal euh, lëndëm na anam ñi koy joxe tax ñu bëgg ci leeral ñu xam ne ko nag gannaaw di doon joxe ay jigéen ñoo xam ne dañ doon tàggat Babacar Diouf. njiital gox yu bees ci Bambey mooy ñaawlu yorin bi ñu yore suuf si ci commune bu Bambey. nee na même bu dee équipe bi nga xam ne moo fi jógee def nay erreur yu mag a mag ñi ko remplacé day taxawuñu guñu pour indi saafara. France gis nañ ci ab nit mu am ay ay vingt parcelle jël ko caxat-caxatee ko def ko ci ay nitam dox leen ci loolu ngir leeral ko pour que ñi ñu nangu woon seen àq ñu daal di ko mën a rétablir maanaam doxalaat dëkk pour que ña ñu xañoon seen àq ñu daal leen ko joxaat ñu ñëw toog ne ñoom loolu toog moo du Diop ne dëkk bii li koy jëmal kanam du lenn lu dul jigéen ñi te nag gis na solution boobu. bu fexee ba yéen omo bi ngeen di jaay université yi di ko jënd di raxas seen i toilette di di raxas seen ay ay ay restauration bu ñu fexee ba hôpital bi nga xam ne boo demee rek liñ lay njëkk a wax nga jënd mooy omo ak eau de javel ñu fexe ba ñoom aussi ñu leen di commandé. bi muy jox lijaasa yi tukkee ci formation bi mu leen doon defal kii di leader mouvement gox yu bees xam la ne homme politique u Bambey day duñu taxaw benn yoon. saa su askan bi amee jafe-jafe. booy politique dosaa bu askan bi manqué ambulance. nga jënd sa oto bu bees tax. bàyyi leen foofu ñoom amuñ ambulance sa yoon nekk. booy politique nga gis ne dëkk baa ngi yokk assainissement amu fi nawet baa ngi ñëw. nga dem Ndakaaru tabax fa sa R plus toog foofu bàyyi dëkk bi. moo du Diop ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu ngi wéy di am yàqin ne mën naa am bés. homme politique yi changer seen comportement ci doxalin réew mi bomb yi. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf dañuy dem ci Fatick wax ba léegi lu soxal walu souf ay ciow li faral di am sam kat yi ak baykat yi di lo xam te ne na lool ki xam te euh, conseil de la maison des éleveurs d'Ismaël Ismaïla Sow moom muy sàkku ci nguur ki euh, ñu fexe dal ba moytu ni mel tamit euh, sam ni ak baykat yi ku nekk nak jël sa walu ñu déglu ko mom Ismaël Sow ci kàddu yi mu yëkëti ci Fatick gannaaw bi doon xayma opération tabaski bi ñu fi doon amal Ismaël Sow. ñëw ci micro Aminata Gueye. région la boo xam ne bi aussi dafay accueillir trop dégg nga ay màngaan donc loolu tamit gis nañu ko mais bu jooytu nañu mu wax dëgg yàlla problème yi nga xam ne am nañu ko ci yenn localité yi ci wàllu déeg yi ci wàllu mbedd yi dégg nga ci couloir de passage yi foofu aussi dañ am jafe-jafe trop te loolu nag boo ko seetee dafay mel na problème éleveur agriculteur te loolu nag loolu bu ñu gisee même ñu wax ni vraiment li ma wax sànq mooy ci problème entre éleveur agriculteur de passage yeeg yoon yeeg fi nga xam ne aussi jur gi daf fay jaar loolu ñu bàyyi xel ak fi nga xam ne jur gi dafay naan foofu parce que loolu nag revenir à trop ci li nga xam ne moom la ñu fi waxtaane suuf si dafa ci am loo xam ne lii dañu ko war a jubanti parce que waruñu ñi ñu taxaw ci suuf si di def lu leen neex parce que lu ñëpp a bokk nit dafay war a góorgóorlu nga xam ne lii ñëpp a ko bokk dafay góorgóorlu xam ne li ñëpp bokk ñëppaa ko bokk di kàddu yi Ismaïla Sow jiite euh, conseil de la maison des éleveurs wax lu soxla wàllum wér gu ak jàngoro ji di hépatite B ñu nemmeeku ne nag mi ngi law bu baax a baax ci université bu Ziguinchor étudiants yi ñi ko ñenn ñi amee nañ ko sax am na sax ñoo xam te ne euh, da leen di lor tax sax ñu jël ci matuwaay ak tamit di ñaax étudiants yi ñu daal di moytu hépatite B lamin Ba ay étudiants yu baree bari seen i bakkan ma ngay rot ci li nga xam ne nag moo di université Assane bu Ziguinchor li ko waral mooy feebar boobee nga xam ne nag ñoo ngi koy duppee hépatite B bokk na ci liñ ci nemmeeku mooy ñi nga xam ne amee nañ sax feebar bi waaye yëguñu ko. hépatite B feebar la boo xam ni at yi ñu weesu dañ see càmbar si biir université bi cas yu bëri yu mel noonu hépatite B feebar la boo xam ni waxuma étudiants yu ko am waaye dañ moo waral directeur ni nañu xalaat boole si hépatite B pour au delà ki nga xam ni de sang dina Euh, le dépistage hépatite B pour au moins ñu xool de feebar pour mën ko si anam bi nga xamni mo moo gën. loolu nag ba centre régional des œuvres universitaires bu Ziguinchor jóg ngir xex li ni mel ba taxna amal nañu ab don de sang liñ jublu nak moy fexé ba teel gis li nga xamni nak modi moo bi ci ñi nga xamni nak amé nañ ko ngir ñu mën ko fajj objectif bi moy vraiment jappalé ñi nga xamni am nañ ko au moins ñu teel prendre en charge cette maladie là vraiment en les vaccinant. jéem a xol la prise en charge intégrale vraiment pour au moins ñoo ñooñu nga xamni am nañ hépatite B loolu moy objectif bi nga xamni

bokk étudiants yi di si gën a gis seen bopp. campus social bu université Assane Seck bu Ziguinchor nag mu ngay dalal ay activités ci ñetti fan ñu dippee ko les 72 heures des ci wàllu wér gu yaram wax ci geneen jàngoro di sibburu euh, ngir nag euh, feggu ko euh, ñi nga xam te ne nag ñooy waa ministère ñoom nag doon joxe ay sànke ñu nandal ci daara yi loolu nag waa district sanitaire ñoo doon amal lu ñu mel lu toll nag ci fukki junni daara wane ne joxe ay sànke ñu nandal ngir nak ar ndongo dar yi ci jàngoro sipuru fat boobu. Kaolack nekk ab zone rouge ñeel wàllum paludisme tax ba ñu war a gën a amal ay sensibilisation yu mucc ayib ngir dakkal lawaayu boobule feebar bu ñu sukkandikoo ci kàddu chef de district sanitaire de ñene Niénessène. lim mi nga xam ne dañuy jël junne ni ñaata ñoo ci am sibbiru bu rombee vingt pour cent rek dañuy naan Kaolack particularité la Kaolack ci région sin Saloum. tey jii mooy ñetteelu activité bu ñuy def ginnaaw bu ñu defee visite de plaidoyer et de sensibilisation. chiffre yi ñu jot xayma daal dinay jaaxal lol autorité sanitaire yi tax bañuy ñuy li di moustiquaire imprégné ci daara yi nga xamante ñu ngi nekk ci bile district sanitaire ci euh, coordination Doudou Sène di coordinateur bu programme national de lutte contre le paludisme. bañu ñu 2022 ñu tollu ci pratiquement 22000 moy wan ci buru bi day yokkaat encore donc jaaru na ñun suñu walu en tant que santé ñu ñëw jàppale daara yi ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey pour tàggat xale yi ñu am wérgu yaram démarrage wu li nga xam ne mooy chimio prévention saisonnière di paludisme. moom mi nag di fàttali ne bile feebar di paludisme kenn waru ko caaxaane tax ba muy sàkk ci waajur yi ñu bay ci seen waar ci lu jëm ci wàllum. prévention bi. que wajuri ñu nekk ci tambali ak euh, ci lepp si du rek rek parce que luy faat warut a nekk rek. aar sa bop am nañ ay way muy sànke di ci teud suba par goudi kep ko xamne tay ji yaram bi na xaar lu demal ci dispensaire bi la gëna jégué campagne ngir séddale li di moustiquaire imprégné ci daara yi nga xamantene ñu ngi faré ci district sanitaire bu Kaolack daal nañ koy tambali lu ëpp ci 1000 daara daal nañ leen di recenser ngir waajal yoy le activité yi nga xamantene daal dinay door. te mu nekk fii ak njeextalu weer jile Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. Fatou Mbow yi naax tegal fukki minit teg juróom ca Ngomeen Gap ak Leloox nekk ci bopp. RFM. xibaaru bëccëg El Hadj Ndiogou Diène wéy ci xibaar yi wax lu soxal wàllum politique tey ci àjjuma ah, ci la nag ay xibaar fësaloon ci la ne tey la président Macky Sall wala wax ki nga xam ne mooy doon ah, mbërum benn bokk yaakaar ci élection yi ñu dëgmal gannaaw bi nga xam ne moom xam ne ne di wut ñetteelu mandat boobu ba léegi nag ay tur yu bëri ñu ngi leen di tudd ci ñi nar a nekk mbërum benn bokk yaakaar bokk na ci premier ministre Amadou baax naka noonu tam Doulaye Daouda Diallo Aliou Ndiaye wala sax Mouhamed Boun Abdallah Dionne ah, ku ci nekk nag fu mu foore ak fu mu foorewul teewul dañ ci ànd ak ci tur faral di ñëw le plus souvent mooy Tur Amadou Ba actuel premier ministre nekkoon ministre des affaires étrangères nekkoon itam directeur général des impôts moom nag euh, am na bu baax a baax état Sénégal day dégager lu ñuy woowee sympathie ci euh, yenn ñenn ci opinion bi daanaka ñenn ñi jàpp nañ ni nekkul ku radical même sa ci côté opposition bi du jël yenn position yi moo tax sa ci APR moo tax ñu koy reprocher li mel daanaka du mu mayo mayoo naka noonu se ñi sa ni mi ngi ci ay calcul ci loolu sa ay analyse euh, politique ñenn ñi jàpp ni moo kon président de la république daanaka yoxu ko bopp trop nekkul homme ku fiable politiquement nak euh, nekkul itam koo xamante ni am na bu baax a baax ci Parcelles Assainies ndaxte euh, foofu tamit euh, deful luy tax ñuy wax waaye nag nekk na koo xamante ni am na doole am na réseau naka noonu itam jàpp nañ ni am na les moyens waaye nag moom ak Abdoulaye Daouda Diallo neexawuñu Abdoulaye Daouda Diallo moom itam turam day ñëw le plus souvent ñenn jàpp sa c'est le candidat naturel zone nord bi moom ak makisal Sall xamante bu baax a baax homme de confiance président bi la ci walu image image fonctionnaire bi mo le pas nak nonu def hawa distant té do ko politique xamuñu ko à part zone nord bi ki di mom bu ku indépendant dépendrul kenn ci parti bi na bu baax baax monde rural bi baykat ko nommé ministre de l'agriculture ça, sa mun na ko yokkal dara yir mu gëna dem au contact avec le monde paysan waye n'ak am na ay faiblesse item réseau yi tanaka développé ko ci lu bari ci APR te trop ci politique politicienne ñen ñi ni def xaw distant touti orgueilleux à la limite Mohamed Boun Abdallah mon mom itam turam ñewna mom nak homme de confiance m'a la mom itam mom sa japp na bopam Baye Fall Macky réseau politiquement parlant da nèk amoul baz bouy tak nye wak apar gosas fye fèm boble. Netel nèk kou am rizou, chaman te bou bach a bach ak kominite moured bi, nèk anon nou serin moun ta xa mbake. Moun nèk chap nan plan Senegal Emergent, ya gnen chemine ak makisal, Bukoran plase mounnen ek kou loyal kontine chanke makisali Nyen nenye Japni mounna am konsensus Menbou feke ni nyen nenye mounnen ko konteste Woyen ak chi walu konklusyon nouman tamel Kep kou makisali moun te chwazir Bo mouyol denam aifisur nyen nenye Bounnen chwazir oul mounnen djar fofou Bersen Daara. Mm. defal seen candidature bopp. Mouhamed Ali mu baax candidature benn bokk yaakaar boobu euh, Macky Sall war a tànn jur tamit coow ci biir parti socialiste euh, PS mel ni euh, sabar su tas jamono ji responsable ku nekk di yëkkati kaddu di wax ci mbir mi ki nga xam te ne nag mooy secrétaire national vie politique bu PS di Mamadou Wane nee na mësuñu jox carte blanche Aminata Mbengue Ndiaye ne ko lu Macky Sall rek ànd na ci ñoom ni ñu gis moo di ne parti socialiste dafa ngir bu ñuy tànn euh, candidat bu benn Bokk Yaakaar te moom ki mu gis moom euh, Mamadou Wane mooy ministre Serigne Mbaye Thiam ñu déglu euh, Mamadou ba ñu génnee suñu réunion secrétaire exécutif national bi mujj euh, le 6 juillet euh, coow dafa am parce que dañu génn wax ni euh, dañuy jox carte blanche suñu présidente Aminata Mbengue Gueye. coow bi nag am ñoo xam ne ni heurte na leen parce que ci réunion bi liñ fa waxtaanee dañ fa wax ni président rafetlu nañu discours bu mu def le 3 juillet ni ni dootul dem candidat mais beneen bi aussi dañu confirmer suñu suñu ancrage ci benn bokk yaakaar te loolu sax defoon nañ ko ci réunion boo xam ne nii ci ay weer ci ginnaaw confirmer moo woon que ni parti socialiste day des benn bokk yaakaar donc li ci des mooy waxtaan mais suñu amee dañu amee yoo xam ne dañuy euh, di wax ay carte blanche di wax ñeneen am dañ ci bopp parce que carte blanche dañu suñu présidente ko na euh, président de la république mu defal ñu convoqué bureau politique militants camarades ñu jël décision par rapport ak ñu jëm il faut que ñu boole ci parti socialiste il faut ñu boole ci parti socialiste parce que parti socialiste euh, kàngam la ci benn bokk yaakaar Et ay la yéwén depuis douze ans ñu ngi ànd ak président Macky Sall lu ñu wax kay mooy nañu nañu yaatal waxtaan bi le président continuer waxtaan bi boole ci allié yi parce que tey lu ñu seetlu rek mooy dañuy waxtaanee rek ci ci affaire responsable affaire rek la ñuy waxtaanee alors que ci biir coalition bi nañ ko yaatal suñ ko yaatalee presque en ce moment là mën nañu wax président mu jël décision mooy candidat à la candidature mais nag suñ ko yaatalul militants yi di xaar am seen kàddu ñu war a wax parti socialiste am procédure yow sax euh, a ngi proposé euh, Serigne Mbaye euh, comme candidat à la candidature mu partialiste pour candidat Benno Bokk Yaakaar. mais parce que am na am bi expérience vraiment sagal sagal parti sax fait ñu ci ci biir bi parti ne ay ay ne profil bi en ce moment là ne mu nekkoon euh, Mamadou Wane di secrétaire national à la vie politique bu parti socialiste wax ci wenen parti euh, di euh, Pastef Ousmane Sonko ñom nak gouverneur bu Dakar dal di jël dogal dem bu tere seen nak meeting d'investiture bi na mën amal ñu japp ko kon suba ci samedi ci stade Amadou Bari ngir tab seen mbeur seen ci Ousmane Sonko ni seen mbeur ci élection présidentielle bu 2024 gouverneur bu Dakar téré len ko waye nak loolu wa Pastef ñaawlu nañ ko néna ñom dara mënu len téré ñu dal di investir Ousmane Sonko suba li ñuy déglu El Malick Ndiaye secrétaire national ak communication bu Pastef moo doonoon tey ganuk RFM Matin. ñun kuréelu politique lañ koo xamante ne nii dañoo am suñuy kayit li ñuy def yëpp nekk lu normal ñu dem déposer fa ñu war a déposer demande ne dañuy investir suñu candidat te loolu ñu ngi koy defee ca biirab stade ndax xam na ne lay wu ne mën nañ ko génne bu ñu tàlloon ab bayaal wala mbedd mën nañu wax ne trouble à l'ordre wala obstruction sur la voie publique ak yu ni stade boobu seen ay activité amul benn problème gis nañu euh, Maman Aïda Mbodj ba sam bu yàggul ses ak ñeneen ak ñeneen donc ñi ñaa ngi organiser seen invest gis nañ fi sax ñi investir candidat yoo xam ne ñi ci kaso bi donc lan moo tax ñun ñu tànn stade ñu ne ñu du ngeen ko fi defee loolu moo dul yoon déjà préfet lañ doon xaar mu jox ñu suñu autorisation ñu gis ne gouverneur moo génn ne ne Ndakaaru région bi yëpp ñu ko fi defee waaye sax même yii ñëw sax def ci anticiper maanaam ci gàttal seen pexe bu sottee mooy Pastef dootul defati du amal benn yëngu-yëngu ci mim réew loolu nag ku koy xalaat mooy da ngaa mbir wala dangaa ngaa juum ci réew mi nga nekk wala dangaa ngaa juum ci askan wi nga amal affaire moo tax ñu jàpp ne encore une fois dinañu continuer suñu activité président Ousmane Sonko dinañ ko tabb ginnaaw bi ñu ko tabee ci ni ko teg si waxee donc loolu moom ala kulli xaal mënuñu ko tere booy boo ñu xam ko li ci des mooy wan ko adduna bi yëpp ñu gis ne kii mooy candidat du peuple mi tamit mënuñu fexe ba duñu ko def donc euh ala kulli xaal euh, li ci am solo moy président Ousmane Sonko dina wax ci kanam té su boba di ngeen xam fan lañ jëm. mais meeting d'investiture bi maintenu euh, samedi ëllëg. loolu président Ousmane Sonko dina ci ñëw ndax bëgguma jitu paaka ci mbaram. Mm, bëgguma jiitu pàkk ci mbaram di kàddu yi El Malick Ndiaye di ki ñu dénk wàllum jokkoo gi ci euh, parti Pastef tey jii moo doonoon gan ak Babacar Fall ak Georges Dethié Diop euh, ci RFM Matin avenue Macky Sall am na léegi ci Ndakaaru mooy avenue bi fi ne woon kon euh, FEDER maire bu Dakar Plateau Aliou jiite ko moo jël boobu la dogal altine di dogal boo xam te nag askan wi rafetlu nañ ko nee nañ nag loolu turu Macky Sall moo gën turu tubaab yi rax si dool tamit Macky Sall liggéey na ci réew mi loo xam ne mérito ñu tuddee ko ak avenue reportage ku ma Sandiane Faye. avenue Faidherbe dafa commencé place des Tirailleurs jëm ba rond point RTS diggante mook Malick Sy. ili Dakar Plateau la dëkkee muy mel ni ku wenn fii fiefam la. gannaaw bu ñu présenté avenue Louis Faidherbe boobu woon tey jii ñu duppee ko avenue président Macky Sall bu doon mbégte ñi dëkkee fii ci Dakar. Macky Sall moom wax dëgg yàlla tuddee ko avenue moom jaadu na ci ci ci Dakar ndax wax dëgg yàlla liggéey na fi loo xamante ni nii ah, kuy kuy waxal yàlla rek. ngay xool di gis sa bët may la. nga xam ne kii jar na tuddee leneen avenue waaw loolu moom dafa jaadu. lu sori foofu ba tey ci avenue Faidherbe bi wala sax avenue président Macky Sall sëñ bi ñu fekk ko ci waxtaan moom it Dakar Plateau la dëkkee. maa ngi tudd Pape Boura Sonko. maa ngi dëkk fii rue de Baye angle Ponti ñu tuddee ko léegi rue Joseph Gomis. jël tur président Macky Sall teg ko ci kaw mbedd mi loolee mbégte li ci moom. kon Alioune Ndoye bu demee ba jël avenue feder avenue bu mag kon bu demee ba tuddee ko président Macky Sall ñun de defuñu lu dul kontaan. ñuy faral di gis ay troupe mbedd yewoon ci jamono yi nasaraan si yore réew mi di coppeeku ko gën a méngoog suñuy taarix waa Dakar gis ni dafa war a wéy. boo xoolee réew moom dañ ko yéex def sax turu tubaab yëpp nañ ko dindi def ci turu suñu maam yi fii ñi nga xamante liggéey nañ ci Sénégal loo xamante mu ngi fi ba léegi kon donc ñooñu il mérite d'être maanaam ñu tudd leen ay tur du tey la ko def de xaarul bañ ne président Macky Sall bàyyi na mu koy soog a def trois ans résident yi commencé na du xool rue par rue ku mel ni tey kontaan nañ ko tout politique du dara lu war la plateau bari na ay rue bari bëri yoo xam nañ ko war a jàpp délibération bu ñu adopté ci séance supp 10 juillet bu wees ci la conseil municipal bu Dakar Plateau jël dogalu po tufliwaat ci nopp avenue Louis Faidherbe troupe avenue président Macky Sall RFM bitim réew Kumba Sandiane Faye laata rek ñi dem ci xibaaru bitim réew ñu wax ne euh, kër gi ndox mi di seen Sen'Eau Jany Arnal moom nag dafay jóge euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août bi ñu dëgmal euh, gannaaw ñett ak genn wàll koo xam te def na ko Sénégal moom Jany Arnal nar a dem ci meneen réew waaye liggéey bi Jany Arnal nag ka fay wuti di ab doomu Sénégal di Maguette Niang Maguette Niang nag nar doon directeur général bu Sen'Eau moom moom nag jot na faa doon sax directeur de la clientèle waaye tam directeur des ressources humaines ak tamit directeur de la transformation bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu Sen'Eau kon léegi ci xibaaru bitim réew ànd ceeg Georges de ci Diop Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay laat ñëw. Gàmbi lañ koy tàmbalee foofu nag ay mbokkum euh, nit ñoo xam te ne dañu fàttu woon di euh, tout tànk toll ci juróom-benn fukk ak euh, juróom-benn ñoom nag ñuy sàkku yoon def liggéeyam ci mbirum gune yooyu fàttu woon gannaaw sirop bu ñu naanoon. agence Reuters mooñ ko xamal ne njabootuk ñaar fukki gone ci ñi fàttu woon ñoom dañuy topp gouvernement ba ca yoon weer wi nii ndax dañoo jàpp ne géré wuñ bu baax importation wu médicament gouvernement bi ci gis-gisu ñooñee samontewul ak lépp jëm ci wàllu loi ci kaaraange euh, ñoom itam ñu jàpp na ay intérêt réglementaire daal euh, sentu nañ ko ci mbir ma gën ka tuuti juróom fekk juróom benn fukki gone ak juróom ben ñoo ñàkk seeni bakkan ndax insuffisance rénale euh, at gi ñu weesu yooyee kaa OMS lënkoon ko ak ay médicaments ya nga xamante ne ñu ngi koy defaree ca Chine ñu ci ay produits yi nga ne ñu ngi koy gën di utiliser ci euh, wàllum industrie naka noonu itam ci antigel jamono ji nag euh, ca Inde ak ca Gambie kenn toppeewu leen kenn toppeegul kenn ca mbir moome wax euh, ci enquête bu ñu ubbi ci ay nit yi ne dañ leen boom moo ca geex ba am ca Darfour

doomu aadama ñoo ñàkkoon seen i bakkan ca euh, guerre civile ba amoon foofu ca Soudan procureur bu CPI ne euh, ni ñuy ubbi euh, enquête boobee nag dana tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeexoo foofe xam li leen war ci ak ak yelleefu doomu aadama Human Rights Watch talaata gi ñu weesu dafa sakku woon ci CPI mu door ay mu door ay enquête jëmale ko ci crime de guerre foofu ca région bu Darfour mi nga xamante ne gis nañ fa ab fausse commune te juróom-ñetti fukki néew ak juróom-ñaar euh, nekkoon ca euh, biir conflit bu Soudan ak jamono ji ña ca ñàkk seeni bakkan mot nañ euh, ñetti yi doomu aadama li ëpp ñetti million daw làqu ji ca république démocratique du Congo amna na benn waay bu loxo ah, député bi di Chérubin Okende. Demboulek procureur général ah, bu cour de cassation xamlé mu nak Nunko, ah, nit kookee ñu ko téggé loxo ci wetuk fa auto bi nga fa la néw ko député ba nékkon ñu jëm ko ay ball mu fatu, procureur firmé Mwande Mambu mo xamlé lu ñu mel démb ab bu ci manifestation yi amone alarba gi ñu Kenya juróom ñent nit ñoo ci ni bakkan lu ëpp ñetti téméré nit uh, ñu teg leen loxo loola ñi ko xam leen ñoo di ab commission droits humains ak ab uh, source officielle mi ci waxtaan uh, ak agence France Presse rassemblement yooyu nag ñu organisé woon ci ay dëkk yu bëri foofu ci Kenya dañ ci nemeek woon ay jàppante diggante manifestant manifestant yi sani ay xeer force de l'ordre nag di tonto ay grenade lacrymogène yenn saay ak ay Barl réel alliance Azimio bu Raila Odinga xam leen démb ne manifestant manifestation yooyu danañ ko tollantiwaat euh, àllarba gi ñu dëgmal ne nag dañu wéyal seen i xeex euh, ba am la nga xamante ne moom la ñuy sàkku ci gouvernement bi maanaam dund gi euh, ñu wàññi seeraay bi ca yi fukki neew ak ñett yu ay migrants lañu ñu repêché guddi gii nii ci ville bii di Sfax foofee nga xamante ne ay bés gu ñu weesu ay jàppante doxoon na diggante ay migrants ak ñi dëkkee ci ville boobee ñoom nag li waral ñu ñàkk seen bakkan seen i bateau moo këpp ci géej Pikine ay uni ay unité yi nga xamante euh, dañuy liggéey ci région maritime bu Fax ñoom daal dañoo mujjee gantal ab euh, tukki bi nga xamante ne jaarul woon yoon maanaam immigration clandestine ñoom nag wàllu nañ lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom migration ba léegi ci Italie euh, juróomi téeméer ak juróom fukki migrants yi ñu wàllu egsi nañ tey ci suba ci poor bu région Calabria bokk ci ñoom ay way juru gone gi nga xamante ne gisoon nañ neewam ca Lampedusa Afrique Africa ñu ne ñaari téeméer ak juróom fukk euh, yeneen i migrants daañu débarqué ca ca Messine jeexale kook ak France mi nga xamante ne tey lañuy ñuy fête seen i euh, fête nationale défilé am ca Champs-Élysées tey ci suba invité d'honneur bi premier ministre bu euh, Inde la Narendra Modi moom nag teewe na ànd ceeg Emmanuel Macron xew-xew googe Macron wa nga xamante nag lañ ca nemmeeku moom daal am na ñu ko doon yuuxu bi mu nekkee ci woto militaire bi euh, yenn saa yi ñeneen ñeneen di ko di ko tàccul jàpp ni itam euh, moom premier ministre bu Inde euh, tegal nañ ko raaya grand croix de la légion d'honneur bi gën a kawe ca France. jaajëf Georges.

Togo ak Mauritanie Mauritanie googu la sax si dañ siy taxaw ndax ay dëkkandoo la kon jàpp ni suñu jongante ak moom mën nañ ko tuddee sax ab derbi ki nga ni di suñu naataango euh, di yëngu ci wàllu tàggat yaram euh, nekk foofu la ca Mauritanie di wuyoo tur Aba doon itam correspondant bu groupe Futurs Médias mo taxawal site bi di Super D1 bu Mauritanie di yëngu ci wàllu euh, championnat bu Mauritanie ma ngay wax maanaam ci équipe bi nga xamante ni moo di Mourabitani poule euh, Mauritanie bi euh, doon na poule bu bu bu bu xaw a métti pour euh, équipe Mauritanie bi mais nag xam nga football Mauritanie moom depuis quelques années football baa ngi progressé mun naa ne bu baax a baax Mauritanie bokk na si poule bi nga xam ne ne fekk na fa ay équipes yi mag comme Sénégal yi nga xam ne mooy favori si poul bi dina fa fekk aussi RD Congo ak Soudan yi nga xam ne ñaari équipes yooyu nga xam ne jot na jouer ak ñoom si éliminatoire Coupe d'Afrique yi yi ñuy jouer nii ba Mauritanie jot a gagné si boppam ñett bal si dara. fee ca Nouakchott euh, RDC mu def moom match nil ca Nouakchott gannaaw bu mu ñàkkee bu njëkk fële ca Kinshasa après match boobu daal xam nga ne tamit euh, waa RDC jotoon nañ si def réserve bi joueur sénégalais bi nga xam ne mooy Khadim Diop nga xam ne dafa jël nationalité dem jouer Mauritanie ñi defoon réserve réserve bi mujjee jox dëgg équipe euh, RDC bi bañ wàññi point Mauritanie donc mu nekk tamit beneen jongante bu nar a dox si ñaari pays yooyu mooy RDC ak Mauritanie Mauritanie a voilà créer peut-être surprise xam nga ne euh, ñëw football fële ca Nouakchott euh, du doon lu jafe si équipe yi ñëw foofu loolu moom dinaa leen ko garantir parce que Mauritanie match yi ñuy jouer foofu à domicile en général da koy gagné donc euh, si jouer à domicile équipe Mauritanie bu dëgër ngay gis équipe bu am taxawaay bu baax donc côté boobu laa daal laay mën a avertir yeneen équipe yi fay war a ñëw di jouer. ma nga noonu daal diggante Sénégal ak Sénégal lay daal Mauritanie. match googu xaw ma kañ la waaye El Hadj. Mm. match googu ko res di res lu rëy. waaw muy àll retour bi. incha allah match bu nekkoon. noonu ba tey ñu daal di euh, ba tey euh, ci lu jëm ci euh, mbir moom la jàppale nii li nga xamante ni moom moo di qualification yi incha allah danañ ko daal di door ci weeru novembre ci atum deux bi ñu daal nekk El way euh, ci wàllum football ba léegi. mbirum Sadio Mané. moom nag euh, fësal na bëgg-bëggam di des ca Bayern de waaw donte nag Bayern Munich ñoom euh, daal nañu xamle ni la ñu bëgg moo di Sadio Mané daal di wutali beneen équipe waaye doomu Sénégal googule moom te géew ko ndax moom daal na xam ne ni tamit ci ay xibaar yu bawoo ci quotidien allemand bi di Bild ci ajuma gi ñu ni ki nga xam te moom moo di Sadio dafa daal di kon bokk jël décision desandi fay foofu la ci Bayern Munich ngir mën a wane li nga xam te moo di valeur am wane itam lépp li nga xamante ni daal ñu ngi koy sax waxtaan ba déggoo am na ci diggam ak ki nga xam moo di Kyle Walker di doomu Angleterre nekk ci Manchester City gagné li nga xamante ni moo di championnat bu Angleterre ak itam Ligue des champions ci xibaar yu bawoo ci quotidien allemand bi di Sky Germany ñu ngay xam ne ni na déggoo ak ñii di nga xamante ñoo di waa Bayern Munich ab contrat ñaari at nar a dox seen diggante ak benn année bi nga xamante ne option la euh, lu ci mënti am rek nee nañ fi mu toll nii waxtaan bi diggante Bayern Munich la ak Manchester City ngir kon boo ko conclure boobule transfert bu Kyle Walker ci équipe boobule nga xamante ni moom moo di euh, Bayern Munich alaaji Euh, dañuy daaneel wàllum football ba léegi yoon ci jigéen ñi. waa ak Sénégal di waajal éliminatoire coupe d' Afrique des nations mu jagleel jigéen ñi ci atum 2024 euh, lañ koy amal coupe d' Afrique google euh, ca Maroc équipe nationale bu Sénégal dana daal di amal kon bokk jongante xaritu diggam ak ñi di waa Algérie jongante bu njëkk bi nag tey ji ci ngoon ci bu 16h30 jotee ca Stade Lat Dior ca Thiès ba des nag talaata incha allah lañ koy daal di amal ba tey ca Stade Lat Dior bu cees ki di Seyni Ndiir Seck moom la ñu dénk footballu jigéen ñi ci biir fédération sénégalaise bu football. moom nag ma ngay wax solos ñaari jongante yooyu nga xamante ni danañ ko amal suñu digg ak ñi di Algérie ñaari match yi ñu xam ne moom la ñu war a jouer ak Algérie ñaari match yi lu am importance la pour suñu équipe ndaxte euh, depuis mois de mars ba léegi footballuñu donc dinañu permettre ñu xoolaat suñu effectif dinañu permettre aussi ñu tester suñu équipe bi ndaxte mois de septembre dañu war a commencer éliminatoire Coupe d'Afrique bi te date bi bu ñu rawee rek amuñu beneen date boo xam ne dinañ si mën a jouer ay match amicaux donc mu nekk date bu importance ñun nga xam ne dinañu gën a permettre ñu ñu ñu ñu tester suñu équipe. voilà mi ngi noonu kon bokk jongante googu tey jii ci ngoon ci stade Lat Dior bu Thiès diggante Sénégal ak Algérie ñu jagleel ko jigéen ñi di jongante xaritu danañ amalaat geneen jongante ba tey foofu le ci stade Lat Dior bu Thiès ba tey ci diggante Sénégal ak Algérie jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf El Hadj Diop jaajëf Kenkeyri AAD ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ndaje mi waa Pastef woote ngir investir seen waaju Ousmane Sonko ci présidentielle yu yi ndaje maa ngi bëgg a tax suuf li tax Sud Quotidien mi ngi ñu koy wax ci xëtamu njëkk meeting d'investiture bu Ousmane Sonko bi gornaarum Dakar di Alhassane Sall neen du fi amee ndax day bañ ko turbale ordre public bi nañu li nga xam ne Ousmane Sonko waxoon na ko keroog mu di suñu ko bàyyiwul bu waa parti Pastef bi gouverneur bi fàttali net ne manifesté gi fi Ousmane Sonko woote woon ngi wax it mbooleem lu di manifestation politique yu gaay namm ci week bi yépp la préfet yi aaye mu di bu waa parti bi di waa Benno Bokk Yaakaar Le Quotidien bi ne ci xëtamu njëkk ne gouverneur bu tëj na Dakar aaye ne lépp lu di meeting ci dëkk bi journal L'As gis ne defante gi Ousmane Sonko woote gouverneur bu fekk si ne ko ci le bind ne investiture bu Ousmane Sonko bi saboté nañ ko journal Tribune jiñ ko Macky Sall yéen yàlla moo ay investiture bu Ousmane Sonko bi teg na ci moom journal Tribune di ñu xamalit ne gouverneur bi jël dogal bi nee na kawo waa kër Ousmane Sonko yi di waa parti Pastef awuñu yoonu def lu gouverneur bi wax l'observateur di ko dëggal ba di ñu xamal ne ñoom waa Pastef les patriotes dëkk nañu gouverneur bi akub dogalam nee nañu mbindeef mënul tee ñu investir Ousmane Sonko te mbindeef it mënta tee seen waa ji Ousmane bokk ci élection présidentielle ci ngoon ci amee lu leer ci ndax dañuy dem ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye investir Ousmane Sonko am déet investir gi ci dëkk bi jamono ji journal Bës Bi Le nee nañu mooy ni force de défense et de sécurité yi jatoo nepp soccet investir mbedd di dëkk bi li xewoon ci weeru juin gi ñu génn ak kaw gi Ousmane Sonko digge ci dëkk bi yéenekaay bi nee nañu ci la gouverneur bi sukkandiku ba tax mu ne duñ fi autoriser benn manifestation politique ci dëkk bi suba ak ginnaaw suba suba ci samedi ji gis na ne lu nekk mën naa xew ci dëkk bi ne gouverneur bu Ndakaaru nee na kenn du fi langue meeting bàyyi ziga meeting waa daane nay waxam ñu wax ci waxi ki war a doon candidat Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle yi 2024 yi nañu ñoom waa Benno jamono ji ñoo ngi ni xóot ubbi seeni nopp di déglu Macky Sall tey ngir xam kan lay tànn bu ñu sukkandikoo ci ki muy wut nan la war a mel enquête gis na ne Amadou Ba moo gën a jege doon candidat bi Macky Sall di tànn képp ku président Macky Sall tànn na ko askan wi yëpp jàppale waa coalition républicaine sàmm suñu réew ñoo ko wax ci xët mu njëkk direct news yéenekaay bi nañu conférence des leaders bu coalition républicaine sàmm suñu réew gi directeur de l'emploi Pape Modou Fall jiite ginnaaw bi ñu njukkee président Macky Sall sargal ko ci dogal bu rëy bi mu jël ñoo ngi sàkku ci sénégalais yi képp ku Macky Sall tànn teg ko fi ne candidat Benno Bokk Yaakaar nañu ko jàppale jàppante am na ci diggante Adji Sarr ak Pierre Goudiaby Atepa ubbilese ko yéenekaay bi nee nañu Adji Sarr moo yóbbu Atepa ci yoon ba di ko laaj juróom fukki million ndax nee na Pierre Goudiaby Atepa da koo sosal fukki fan ci weeru août yéenekaay bi nee nañu ca la seen face à bu njëkk di am bi nañu keroog le 11 moom Pierre Goudiaby Atepa dañu ko invité woon ca télé bii di 7TV ba muy wax ba yegg ci mbiri Adji ak Ousmane Sonko Atepa dane am na benn bés muy tukki ak benn femme buy liggéey ci ONG buy taxawu jigéen ñi ñuy mittital ak di leen duma Atepa ne la ko femme ba wax moo di Adji da ko doon manipuler sàcc na xaalisam sàccit benn jaaro jamaam waxam joojee moo metti Adji mbir meneen mu mitti ba yegg ci lool mi ngi ci libération a dem Espagne yéenekaay bi mi ngi ñuy wax tool nañu léegi ci juróom-ñetti doomi aadama ndax am na ñeneen ñaar ñu faatu démb ñu fekki juróom-benn néew yi ñu génne ci géej gi li ci gën doy waar nag libération nee nañu mooy ci même jour bi marine bi jàpp nañu ca ndar googee ay boori 11 heures ci guddi gaal gu doon dem Espagne juróom-ñaar fukki doomi aadama ak benn di 71 personnes ñoo ca newoon ci ñoom ñaari jigéen ak ca woon. Kenkeyri AAD ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mbokk ñu yegg seeg yéen léegi ci gis-gis nag li ñuy waxtaanee jëm ci wàllum texe gu ju tere meeting d'investiture bi euh, waa Pastef nam euh, amal suba ngir investir Ousmane Sonko ci présidentielle 2024 ngeen waxtaan ñu mel nag daañu ci ànd ak euh, ñaar taskatu xibaar muy Babacar Dione analyste politique directeur de publication bu lii quotidien Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Diogo. jërëjëf daañu naan tam ci waxtaan wi ak Pape Amadou Fall moom tamit di taskatu xibaar nekk directeur de publication La Gazette Pape ñu ngi lay nuyu. fay nañ la El Hadj Ndiogou. comme comme que yaa féete mag dañ lay jox ceru mag bi euh, kilifa euh, Papa Amadou gis nañ ne euh, gouverneur yi bu dakaar xam na ne ne manifestation rassemblement yeeg meeting yi waa Pastef na moo na amal suba yëpp ngir investir Ousmane Sonko ni seen mbër ci élection présidentielle bu 2024 dañ ko tere ndaxte neen dañuy ragal fitna am ci yow ba njàngeen ngay def ci dogal bu ni mel. Euh, xam nga kilifa bu yëkkatee li nga xam ne moom mooy dogal rek sabab ba jar na bàyyi xel lool te li nga xam ne moom mooy njàngatu euh, gouverneur dañ naan waaw parce que kat war nañoo mën a nag euh, fal ki nga xam ne moom mooy seen kilifa. Mhm. bu fekkee moom la ñu bëgg def candidat à la candidature waaw ci li nga xam ne moom mooy. présidentielle bi nga xam ne moom moo di ñëw ñu ne Ousmane Sonko la ñu la ñu joxoon ci fànn boobu. war nañ ko mën a def. war nañ ko mën a def du ma wax fu leen neexee mais ñoom dañ jël sax matuwaay ne dañ koy def ci foo nga xam ne day tëju muy enceinte. Mhm. maanaam ci ci biir ab stade. loolu sikk waru ci mën a am. ci wàll bi nga xam ne moom mooy euh, doxalin bi. Mhm. lu dul ne dafa am ay kàddu yoo xam ni. Ousmane Sonko ci boppam moom moo ko yi mhm. di dankaa fu réew mi ne su fekkee dañoo ma gàllankoor ci li nga xam ne moom mooy li may def. Mhm. candidat à la candidature bu boobaa day réew mi dinaa ko taal. dinaa ci indi ay jafe-jafe. ah mais yeggaguñ foofu fi mu tollagum nooy investiture lañ waxagum est-ce que waroon nañ leen mën a bàyyi seen àq ak yelleef la parti politique moo amal investiture candidat moo xam candidat ba nga prison fu mu mënti nekk loolu seen sañ la war nañ leen ko mën a nangul. xam nga doxalin bu nekk rek dañ naan lu ci ñuul lu ci ñuul moom mooy wax ci fii mu toll nii ndax loolu nga wax man moom laa wax dama ne Pastef mm. war nañoo mën a jël ki nga xam ne moom mooy seen candidat. à la ne kii lañu ñu joxoñ mhm. fuñ ko defee te mu doon fu am kaaraange rek baax na mhm. waaye gouverneur moom dafa am dëgg-dëgg ci li nga xam ne moom mooy mbir mi ndax Ousmane Sonko dañ koo tënk fi mu toll nii tënk bo nga xam ni jaaduwul mhm. loolu ñi nga xam ni dañuy eh, taxawee ak ak yelleefu doomu aadama yi yëpp ànd na ci ne ni ñu ko tëjee ci biir këram fële ca fa nga xam ne moom mooy cité kër góor gu tey jaaduwul warul ndax su fekkee dañ koo daan ci wàllu yoon mhm. daan boo nga xam ni daan ba yeggagul sax parce que fi mu ne nii dañ ne danañu topp li nga xam bi nga ak ki nga mhm. daan nañ ko ñaari at ci ak ki nga xam ne moom mooy Mame mais loolu bu fekkee dañ ne yoon dafay continuer moom Ousmane Sonko pareeguñ ci li nga xam ne moom mooy loolu. Mhm. mu yëkkati kàddoom ne buñ ma gàllankooree dinaa taal li nga xam ne moom mooy réew mi te ñu tëj ko tëj boo nga xam ne awul yoon waaye tëj nañ ko. Mhm. tëj nañ ko tëj booba nga xam ne tëj tëj nañ ko jaaduwul ñëpp d'accord nañ ci. Mhm. mais buñ ne dañ koy génne foofa mu nekk. mu ñëw teewee li nga xam ne moom mooy euh, meeting bi ñu war a def suba. na dañ naan kon dina jóg. gouverneur foofu la duut baaramam. na na ñu ñëwaat ak yow papa Amadou wéyal. après na ñëwaat ak yow sax euh, kon Babacar euh, la ji àndal Babacar jon Babacar dégg nga papa Amadou li mu wax euh, moo di ne yi fi woon ak kàddu yu Ousmane Sonko yëkkati ragal fitna moo waral kilifa yi jël boobule dogal ndax ragal nañ ne comme que waa Pastef ñu ngi wax ne Ousmane Sonko dafay teew ci ndaje bi te jamono ji xam nañ mi ngi blocus lu nekk mën naa xew moom moo sabab boobule dogal ndax mel. allo Babacar. Hmm. waaw waaw dégg. Uh-huh. waaw man ni man ni li ma si mën a yokk sax mooy kër yi. Uh-huh. Euh, dëgg la naam euh, Pastef am nañ droit investir xam nga dégg naa léegi euh, chargé communication El daal di ne lan moo tax ñu nangul ko Aïda Mbodj. Uh-huh. lan moo tax ñu nangul ko ñeneen te ñoom mënuñu leen ko nangul. xam nga xam nga Aïda Mbodj du Ousmane Sonko Khalifa Sall du Ousmane Sonko Karim du Ousmane Sonko parce que ñooñu. denc nañu leen kaso tëj nañu leen def nañu seen investiture ku mel ni Karim Wade def na ko deux mille dix-neuf waaye terewul coow amul mais bu fekkee Ousmane Sonko dafa am loo xam ni noonu lay waxee kàddoom noonu lay tënire te te yamul rek ci investiture bi ah man dama yaakaar ni investiture bi li ma xalaatee mooy gouverneur bi daf ko boole ci lépp loo xam ne manifestation la man na indi coow parce que bu fekkee ñoom dañu ne dañuy dem jëli ko loolu nag yàgg nañ koo wax waaye damay gis ni rek lu ñuy wax la. jéemoon nañ ko le 25 mai sottiwul le 25 juin. waaw jéem nañ ko waaye yeewi def nañ ko mais sottiwul. ñu koy jéem. Hmm. leader nga xam ne sax ñoo fay dem benn lacrymogène la ñuy sàdde ñoom ñëpp tas. Hmm. loolu euh, donc te nit ñi du ñu ànd ak ñoom. Hmm. mais li ma mën a wax mooy que ni bu fekkee effet de poule. xam nga yow effet de poule mooy euh, militants yi jóge fu nekk ci Sénégal ñëw daje stade Amadou Barry euh, bu Géejawaay te Géejawaay nekk ci banlieue nga gis nit ñi ni ñu bëree foofu

autorités yi dañuy toog xaar rek. ba Ousmane Sonko yëngal nit ñi ànd rek moom mu am mu am si Sénégal yu suddee ba pare nag ñuy doog a yëngu moo tax man dama ni damay ànd toujours bu fekkee autorité bi dañ leen a wóolu ñu mën a tëdd ñun di nelaw tranquillement ñoom ñu jël ay décision bu fekkee nee nañu kat Ousmane comme nangul nañ ko ay Mbodj kon ça veut dire que kon lan moo tax nangul nañu ko Ousmane Sonko kon dama yaakaar ni mën nañ ko bañ a jël ci cadre opposition bi la ñuy tere mu hmm. mais Ousmane Sonko dafa nekk un leader particulier dafa am discours bu violent te Pastef bi ànd ak moom gis nga barki démb ku mel ni Diop un discours violent boo xam ni kat man li may xaar ci autorité yi mooy ñu moytu li amoon premier juin daal di amaat. Mhm. Babacar nañ ñëwaat ak yow euh, ci waxtaan wi laata loolu dañuy ànd ak euh, Pape Amadou Fall.

ñaata parti fi nekk ci singali wuñu leen ah su fekkee dañoo dund loo xam ne ci réew mi ñaari yoon ki nga xam ne moom mooy njiitu Pastef di Ousmane Sonko ci kàddoom yu mu yëkkati la fitna di feeñee ci li nga xam ne moom mooy réew mi ay doomi aadama ñàkk ci li nga xam ne moom mooy seen bakkan ñaari yoon

ba indi loo xam ni dama naan lii de la xam séentu woon naa ko jëloon naa samay matuwaay waaye matuwaay ya nag doyul te bu booboo giraawaale gi nga xam ne moom lay indiwaat ci réew mi day tax ma ni rek du fi amee mu jeex tàkk du fi amee nañ ko tënk suñu soppee nag li nga xam ne moom mooy seen doxalin suñu soppee li nga xam ne moom mooy seen waxin parce que kàddu goo xam ne saa boo ko déggee da ngay tiit wax dëgg fa yàlla da nga bëgg di tëj li nga xam ne moom mooy say nopp wala nga tëj la nga xam ne moom mooy làmm làmmiñu wa muy jóge mhm. kon xeex la mhm. ci diggante nan ko nangu xeex la ci li nga xam ne moom mooy diggante état bi mhm. ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Pastef li ñuy ñaan mooy état taxaw sénégalais bu nekk ak réew mu mënti doon foo mën a ne da ngay bëgg sa état taxaw waaye du doon loo xam ne dañ koy woyefal Ousmane Sonko fii ñuy waxe nii ku nekk xam ne ni waroon na nekk ci li nga xam ne moom mooy kaso bi bu fekkoon ne doxal nañu li nga xam ne moom mooy yoon waxuñu ne parce que dañ koy ëpp doole mais dafa doon loo xam ni li war a taxaw ci réew lay doon mm-hmm. xeex boobu nag ah yàlla na jig Sénégal Mhm. jërëjëf Papa Amadou dañuy daaneel ak euh, Babacar euh, Babacar euh, est-ce que yenn décision itam do indi radicalisation côté wa Pastef yi buñ ne né duñ fa amé par la force ñu taxaw gis né dal xex bi dañuy gëna a dogu ci xex bi nga xam tane ne ñi ngi koy xex bu fekkee ne chaque fois bu ñu bëggee organiser ñu tere est-ce que loolu du leen pousser sax à la radicalisation. non non xam nga El jogu Diogo gis nga Sénégal il faut ñu wax dëgg xam nga radicalisation am na bu yàgg ci Pastef

fa la journaliste di génne mu nek symbole formation journaliste ñu dem taal ko yow amna yow signal bo xam yow dañ la ko jox mii yow mi ala jog di wax ni RFM bu fekkee dañu dem université fa kàngam bi di génne ñu taal ko on ne dénonce pas assez sénégalais yi waxuñu si bu fekkee lepp luy infrastructure édifice public dañ ko tal bu fekkee ay sénégalais ñi Nan trente personnes dee nañ ci te heure bo xam Ousmane Sonko jóg na lay mujjé mais est-ce que nak dans ces conditions là ñun Sénégal dañu naan état parce que état de droit man dama yaakaar ni am na waaye état moo jiitu bu état amul maanaam ñun Sénégal bu ñu amatul est-ce que fi nekk naan état de droit am na wala leen am na te loolu man dañ ciy xaar parce que man dama gëm ni l'état dafa faillir le premier juin faillir mooy que ni bàyyi nañu mu yegg dimension boo xam ni yegg na foo xame ni ñun mënatuñu ko woon téye man nag damaa yaakaar ni bu fekkee peut-être ñun amuñu moyen yoo xam ne mën nañoo téye catastrophe yu demee noonu li gën mooy que ni nañ ko artu Mm-hmm. kon man damay xaar ci état bi mm-hmm. ñu artu mm-hmm. avant que ñu yegg ci li amoon keroog le premier juin jërëjëf euh, Babacar ñi koy sant koy gër moom Babacar Dione euh, taskatu xibaar euh, jiite yéenekaay bi di lii quotidien del tam di sant bu baax Papa du Fall di taskatu xibaar tam jiite yéenekaay bi di la Gazette mbokk yi mu nekkoon gis-gis newoon tam xibaar yi El Hadji Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi Assane ah, Diouf ci machine bi ñuy gërëm Abdou Thiam ak ah, Aliou Ba ca production ah, soxna chef d'édition nak na tamam Astou Kane ci ndimbal li Yassine Pouy nekkoon ci digital bi mbokk ñu leen di sant leen gërëm ñaanal yendal